asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ci na sa tur ak sant maa ngi tudd Awa Ndiaye coordinatrice SR bu district sanitaire bu Mbacké. tey li ñu fi indi woon mooy dans le cadre euh, octobre rose mois octobre rose bi pour dépistage cancer du col de l'utérus moom moo ñu woon fii ci Diawrakuta parce que boo xoolee district sanitaire de Mbacké dafa organiser ci différents PPS yi maanaam poste santé yi. dépistage yi fu ne ñu dem fa pour femme ñu defal dépistage cancer du col parce que boo xoolee kii lañ njëkkee Taïf lañ njëkkee après bi njëkkee Taïf tamit euh, après dem nañu Missira sunu ñetteelu poste de santé mooy fii Diaourékouta te ñëw nañ fi ci suba ba léegi ñuy defal de femmes yi dépistage cancer du col ak offre PF ensuite tamit am nañu dépistage cancer du sein cancer du col ak traitement des IST mooy prise en charge des infections sexuellement transmissibles. aw euh, nee nañ alhamdulilah parce que bi ñu jotee tàmbal ci suba ba tey gisaguñ fi benn cas bu positif wala cas suspect amaguñ ko ci daal mais xëy na fii ngoon su ñu defee ba finaliser kii liggéey bi dinañ mën a xam ñaata cas lañ fi am ñaata cas lañ fi jël en charge ak ñaata nit lañ fi référé tamit mais loolu bu ñu demee ba ay 18 heures 19 heures peut-être ci lañ ci mën a am une mais ci li ñu jot xayma daal fii ñu toll nii 60 60 à 70 femmes dépisté nañ leen leen fii mbooloo maa ngi fi ñëpp a ngi teew xëy na fii kii daal nombre bi dina gën a yokk. fa yàlla amuñu fi benn population benn problème parce que bi ñuy ñëwee fekk nañu waa béréb bi maanaam waa waa Diawrékouta muy population bi. ak CDS bi de même que sage-femme beeg infirmier bi yëpp ñoom ñu ngi doon sensibiliser au niveau des différents villages yi nekk ci Diawrékouta wax dëgg fa yàlla femmes yi ñëw nañu parce que ñun bi ñëwee fii lañ leen fekk te tamit euh, am nañu engagement bu baax parce que sànq rek def nañ fi causerie par rapport ak dépistage cancer du col yooyu yëpp wax dëgg fa yàlla échange bi neexoon na trop gëm naa ni liñ leen fi wax dinañ koo jëfee incha allah. Euh, comme euh, indi nañ daanaka sage-femme yi nekk euh, centre de santé yëpp indi nañ leen ñi ñun ci poste santé yi yëpp tamit ñëw nañu de même que am na matériel cryothérapie bu ñu indi woon fii pour jigéen ñi nga xamante ni dañu am cas positif yi pour ñu mën leen def traitement. bi nag bi ñu ñëwee bi ñu defee xayma gis nañu am na ay manquement am nañu ci lu mel ni ambulance parce que am ambulance bi dinañu permettre évacuation yu ñu koy mën a def à temps parce que évacuation bu ñu évacuation moom. waxuñu ñu defee ko ci charrette waxuñu ñu defee ko ci oto ambulance mooy li nga xam moo gën gëm naa ni incha allah ak euh, partenaire bi ak waa district sanitaire à travers euh, madame Mbacke MCD bi dinañ ci indi ay saafara lu yàgg euh, ci kanam tuuti rek incha allah chaque jour moom bu ñu population bi soxla ñun moom pare nañu pour fekk si leen tout question de octobre rose bi kese la mais en dehors octobre rose bi mois bi tamit dinañ continuer di def suñu activité de même que sage bi nekk fi tam bu ñëwee moom ci boppam. dana leen mën a defal dépistage bi fii parce que ku ci ne yaakaar naa ni formé nañ leen ci gërëm waa population Diawrékouta bi ci ci autorité administrative yi ak ci waa borom dëkk bi yëpp gërëm nañ leen ci gërëm tamit population bi parce que gis nañu taxawaay bi di leen soñ daal pour ñu gën a toppatoo seen wérgu yaram léegi cancer bi ñu ñaar yi moo ñu tax a jóg mooy cancer euh, du cole de l'utérus ak cancer du sein parce que loolu la ñuy wax cancer jigéen ñi mooy cancer bi nga xam ci ween bi lay nekk ak bi nga xam ci butit njurukaay bi léegi nag dépistage de masse yi dañ koy faral di ko organiser pour ñu mën a xoolee cas positif ak ñi nga xam ne dafa négatif te loolu tamit am na beneen volet tamit bu ñëwaat prévention muy la vaccination des enfants maanaam xale yi jigéen yi nga xamante ni ñu ngi toll ci juróom-ñeenti at bu fukki at ak ñeent normalement am na ñaari vaccin yu ñu leen war a defal benn bu njëkk bi mooy weer bi comme par exemple soo ko defee mois de janvier da xaaraat 6 mois ci kanam pour ñu defalaale deuxième dose bi boobu mooy prévention bi gën a wóor de fekk génération future bi ñëw duñu mën a amee cancer du col. kontaan ci ñëw giin ñëw ak liggéey bi niñ ko liggéey ak taxawaay bi ñu taxaw ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax di ci sant gouvernement bi parce que boo amee ñoom ci leen bokk di ci di sant waa district bi ma madame Mbacke ak ñi mandal ak xale yi nga xam ne ñoo ñëw fii di def liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. mais da doon baax nag ma wax tuuti ci dispensaire bi li ko fi taxawal ay gone yu jógee fii dem bitim réew ñoo def seen i pexe seen lijjanti ba def ko case de santé muy dox di dox di dox di dox ba gouvernement bi jël ko ñu di leen ci sant bu baax ndax noo doon fay lépp léegi nag jàppal nañu infirmière bi ak sage-femme bi dina ko fayal kon loolu danañ ci sant yàlla mais des na nag des na des na lu bare bare bare bare matériel bu bëri manqué na fi bu ñuy liggéey ambulance manqué na fi même bu ñu amul ambulance nan ñu wutal moto boo xam ne euh, infirmier bi dana ci mën a dem di dox ay soxlaam ak a génn di sensibiliser nit ñi parce que nit ñi itam ci jamono ñi ñu toll nii sensibiliser mbooloo mu toll nii sax yaakaar moom danañ fi ñëw parce que ñu ngi ci période fin wu nawet bi euh, récolte bi yu bare bare bare bëri dafa war a téye nit ñi yàlla dimbale nu nag ba ñoo ñëpp ñëw na te nit ñëwee it rafet na trop ñu ci sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñ kenn rawatina nag ñi bàyyi seen eh, district ñëw fii ci eh, hôpital bi nga xam ne bi ko gouvernement bi jëlee léegi yàggut ñu ñëw fi def ko fi muy troisième bi kooku moom sant yàlla bu wér a la yal na leen yàlla jàppale ba li ngeen bëgg lépp ngeen am ko ci dara yi ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam soxna yi ñooy borom kër yi borom kër yi ku ci xëy da wuti looyu indi ci kër gi soxna yi ñooy seere malaati gone yi ñooy seere seen bopp ñooy seere lépp góor ñoom bu ñu xëyee yàq ña nga wuti loon am andi ko ci kër gi man man cee jàpp loolu moom lu wér la. borom kër yi amu message bu ma leen jox parce que ñoom xam nañ li war a def ay jàmbaar lan yoo yu takku te jub jub gi moom lu wér la ay jàmbaar yu jub lan ñooñu nag. gouvernement bi war naa jàppale dispensaire bi parce que ban ko yoree yàgg na defe naa war naa ëpp ñaar fukki at ñoom ñoo koy fayal seen bopp def lépp ba gouvernement bi jël infermier bi ak sage bi matériel bi nag mënuñu ko wutal bopp xaj na man nañ ko sax mais waratuñu même bu nu waree itam ñoom war ñoo war a jàppale ndax ñun mënuñu lépp ñoo fi téewoon ñi fi nekkoon ba ba ñoom ñu ñëw jël ko ah ñoo ngi ci sant madame Mbacke ak euh, médecin Dieng ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. ñi fi jot a def ci consultation wax dëgg am ñu ngi ci kontaan bu baax a baax ndax loo xam ne da ngaa waroon jug non seulement dem fu sori dem wuti ko beneen bi nga fay ci sa xaalis ñu ñëw defal ko gratuite sa dëkk wax dëgg am kontaan nañ ci bu baax a baax. ngi poste de santé bi fii ci Diaw Recoute wax dëgg am na solo trop ndax dañ daan jugee fii de 6 kilomètres dem wuti poste de santé Touba Mboul lañ daan dem ñenn ñi daan dem Kayel wala Mbacke. kon bu ñu amee poste de santé fii à zéro wax dëgg am day am na solo daal kontaan nañ ci bu baax a baax di ci jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu ci jàppale muy ressortissant ñi nga xam ne ñoo jógee ci dëkk bi dem ba Espagne créé fa benn ONG ànd kook ay tubaab ñëw fii dellu siwaat ci seen dëkk di di leen jàppale depuis 2014 ba léegi nag ñu construire fi poste santé bi recruter infirmier sage-femme di leen fayal seen bopp ba mai 2023 bi la ko état doo ko jël jël en charge sage-femme ak infirmier loolu nag ñu ngi ci leen ci sant bu baax a baax di lancer waat appel ci état bi rek pour mu gën a jàppaat ci poste de santé yi surtout bii nga xam ne nouvelle création la bëri na matériel yaa xam ne bëri amu ko ak euh, comme logement yi tamit dañoo boole logement sage-femme infirmier te loolu warul nekk sage-femme war na am logement boppam comme ambulance moto boo xam ne tamit bu urgence amee comme des fois fii ay garab yi rek ngay am am na urgence yoo xam ne nii boo ko amee comme yenn garab yi nga xam pharmacie nga war a dem loolu tamit da doon baax moo am moto boo xam ne euh, infirmier dana mën a dem daar daar mën ko wuti. moom wàññiku na wàññiku na bu baax ci ci gox bi bëri na ñoo xam ne ñu ngi ñëw wax di yaam waaye nag des na ba tey ñu gën a ñaaxaar rek jigéen ñi ñu gën a fréquenter poste bi. peut-être am ñuy dem feneen sax ndax dañ ko miinagul mais daal ñu ngi ci lancé appel rek pour. mbokk jigéen ñi góor ñi tamit nga xam ne ñoom ñooy responsable yi ñu gën a soññaat jigéen ñi ci ci fréquentation bi daal. yëg nañ ci suñu bopp ndax yëg nañ suñu wér yaram danañu seetal suñu wér-gu-yaram seetal suñu njaboot yëpp baax na ci waaw ndax dañ ko doon dem di def Mbàkke wala nga dem bu Tuubaa bul wala Kayel te sori dégg nañ te danañ ko def ku ñëwu tamit danañ dem di wër kër yi man moom ci la kii bi laa bokk ci kaas bi danaa dem di wëri kii bi di leen wax. man maay président bi kii bi. leen wax daal li ñu wax li ma fi dégg moom bu soobee yàlla moo ma demee danaa leen ko wax nañ ñëw seet seen yaram. ambulance daal doxal soxla nañ ko ci ak moto ñu ko mënut tam